nuyu naa leen bu baax fan wu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañu ko yàlla boole defal. fan la Ousmane Sonko mujj ak conseil constitutionnel loolu dama leen koy dégtal bu ñu noppee nag ñu dem ci li am solo ana lan moo am solo ginnaaw bi ñu defee li ñuy def ba noppi. justice la mu wax yëpp dañ koo jël sànni ko ci maa tey ak doole. la ñu rëy ne ko Ousmane Sonko du bokk ci candidat yi mu neex ko mu naqari ko mu neex nga ànd moom mu naqari leen mu neex réew mi mu naqari réew mi mu neex addina bi mu naqari addina bi ci loolu la ñuy léegi nag ci kaw complot boobu sunu dossier fexe nañu ba dugal ko bañ koo dugal li daleen bert bañ ko yëgee dañoo déterlu léegi nag tey lañu waroon xool ndax sunu parenage jaar na yoon sunu parenage parrainage député donc day jàll fexe yi moom moo di que ba ñu accéder ñu nekk seen dossier motul te récépissé yeeg yëpp yor nañ ko dañ ko teg ci li yoon wax teg ko ci ñoom conseil constitutionnel ci dogal yi ñu génnee nekk bu fekkee ne que lii ak lii am na lii ak ak lii ak lii lay wéy la nga xam ne loolu lañ ne loolooy wéy loolu yëpp jot nañ ko ba ñu dikkee toog ñu wax ñu tout de suite nañu que seen dossier matul. ma ne leen seen sunu dossier matul.

mu dogma ne que président bi dog Badio Camara ne que lepp lo fi indi mu don ci dossier mu don ci ay bataxal yëpp wane nañ ko commission bi réunir na ba paré xol gis ne que manqué na pièce te commission bi mënul réunir te fekk man fekkeewuma ko pour que ñu war a enveloppe bi nga xam ne ci laa def kayit yi dañ koo sele pour que ñu vérifier ci sama kanam ba pare nag na alkaati bi kaay ñu yëkkati dafe pour que mu génn naka wax ji jeex na. fii lañu mujj ak Ousmane Sonko ñun ñëpp ko déggandoo lenn dong nag mooy turam mooy jaay doole amul leneen jaay doole mooy lan mooy dafa am luñ fi teg muy yoon yoon boobu war a tëral. mbooleem doxalin yi nga xam ni ñi bokk di dund bokk benn dëkk ci lañ war a dox dafa am lu ñu tënk ngir ñu nekk ci jàmm dafa am lu ñu tënk ngir bu ñu bu ñuy xëccoo ci mbir ba mu nar a jéggi dayo dafa am lu ñu tënk ñu demee élection dafa am lu ñu tënk boo demee lépp lu mu doon dafa am lu ko tënk texte yooyu noonu la amee fii ñu toll tey muy wàllu élection présidentielle am ci loo xam ni moo ko moom muy wàllam lenn li nekk ci code électoral muy ay charte yoo xam ni day dox diggante réew mi li mu tëral ak képp ku bëgg ca mbir mooma dara muy képp kuy présenté wu comme candidat mais yeneen yi muy loi yi nga xam ni dañ ko bind ci suñu constitution nga xam ni képp koo xamante ni nii doon nga ñi bëgg bokk ci élection présidentielle yi bokk nga ci yooyu it mooy charte yi nga xam ni mooy dox sa digganteeg bokk gi charte yooyu nag ni mu tënkee ki bëgg a bokk noonu lay tënkaale mbooleem ñi nga xam ni ñoo ko saytu ñoo koy saytu te sikk ko te ŋànk ko di ko saytu ba ci conseil constitutionnel lépp lu mu ciy def moom it ay chart ku tënk charte yooyu nag ñoom lañ moom tey moom lañu wane ni lijjanti ko faale ko toppatoo ko mais li ñu bëgg lañuy def li ñu bëgg mooy lan mooy Ousmane Sonko du bokk nga mën cee jaare it demaale ca Cour suprême foofa la fa xew jarul lijjanti li tax jarul lijjanti benn bi ci jiitu rek mooy ku ni woon dafa bëgguñu ñu ragg deram ñu ragg deram ba moom mu wax ni deram set na am na ndam kooku moo jàllar bi wëlbatiku lijjanteetul deram mais ma ngay lijjante leneen kon bu ñu ci accès ba heure bi avant mu ñuy agsi ba heure bi fekkoon na ñu xam yéene bi kon bettewul itam lañu fay def lépp lu mën a doon bettewul dañuy xam ni rek li waral kon mu ñu àtte ko ngir dafa ne woon dafa bëgg ragg deram ñu àtte ba noppi génn verdict mu daw ca page facebook am bind wane ni moom am na ndam ci kaw li mu bëggoon ba mu ko wanee ba noppi bu fekkoon deram kese ko tax a jug ca lay yem mais est-ce que moo ko tax a jug taxu koo jug ka nga xam ni moom lañ ci doon xalaat muy état moom moo njëkkan yebal ndaw ñu dugal seen dossier bopp ca biir dossier wu ñaari nit ñu sekk procureur ñëw tax auto autosaisir kon léegi ñu confirmer ni kon nekkatul mbiru ragg der foofu leeral nañ ko kon foofu la fa xew jaratul topp moo tax lu ñu mujj def mooy atte ba ñu atte woon dañ ko saxalaat mais balaa ñuy ñëw nag ci lan mooy solution bi mooy am na leneen nag lu ñu war a lijjanti ba pare mooy kiy jaay doole lan moo tax mu jaay doole parce que képp ku jaay doole day fekk ki nga jaay doole nga sañ ko jaay doole koo sañul jaay doole doo ko jaay doole moom la olof di tënk ci ne uude ni mu la gisee la lay ëwale moom lay tënk it ci ne bukki bu dabee waxambaane ca doxin wala effectivement bu ñu waxantee dëgg nag rekk bu ñu waxantee dëgg Macky Sall am na droit jaay doole lu tax mooy bi mu bëggee jaay doole wax na ko ñëpp dégg ko soo amul ne leen ma am bi mu ko waxee ba noppi jëf ko jot daf ko daal di commencé jëf ñëpp di ko gis ñan la doon jaay doole sénégalais yi d'une manière général la taxaw wane ni moom li jëntiwul mboolem lu ci nit di ragal ba defoo woon ba waxoo woon moom du ko ragal moom da koy def da koy wax mais li li am solo mooy bi mu commencé wane ni moom lijjantiwul constitution yi constitution bi li mu wax lijjantiwul institution yi kon lañ cay doxal lijjantiwul bay lijjanti sax kon code électoral lan la wax ci wàllu élection mais bi mu dalee wane loolu yàgg na te bi mu ko dalee wane ba léegi mi ngi jàll kon dafay am droit continuer di jaay doole kooku fa ñu nangu ko kan moo waroon bañ jaay doole gi mooy ki ñuy jaay doole muy askanu Sénégal askanu senegal moom mi ko waroon bañ nag moom moo ko nangu nañu waxante dëgg su boobaa lii am xam nga lan la mooy li taxoon nga continuer di xeex ba heure bii mooy gëm goo gëm ni li ci jiitu mooy yàlla mooy fale yàlla moom nga gëm ni woon mooy fale moom moo wane ci biir mbiru Ousmane sonk luy wane ni namm na ci moom fal ko ba tax mu jox ko lim ko jox ci gannaawam ci mbooloo ci li mu ko may lépp kon yàlla wane na ko yàlla nag bi mu ko wanee ba noppi jaam moo koy sabablu sabablu bi naam am na mais am na lu bari lu ci des loolu c'est la vie nag mooy comme yàlla muy fale moom wane na ni am na lu mu bëgg a def waa ji fii ci réew mi loolu mooy li maye courage bu heure bii ngeen ko doon xeex day continuer kon découragement warul am jaaxle warul am jarul yii yëpp jaru ko li am solo mooy topp leen mbir yi ba mu jeex tàkk jeexagul léegi nag ñoom kan lañuy ñuy joxoñ nañu leen déglu xaar leen ñoom ñu wax kan la ñuy joxoñ buñ ko joxoñee ngeen dem ci loolu ba ñu xam ñoom est-ce que yàlla dina namm ñoom li ñu li ñu bëgg yàlla dina ko dogal wala yéen li ngeen bëgg moom la yàllay dogal c'est lii rek la lii nag àndut ak décroisé àndut ak demee xol àndut ak yu mel noonu xel la laaj patient la laaj fii ba keroog ñu naan kii moo génn premier tour ci taxawaay dong lañ war a nekk fii ba keroog foofu nag jeex na mais lu mën a xew Ousmane Sonko ci début carrière la nekk dara lu fi passé amagu fi loolu laa gëm jafe-jafe amé ko fi li doon tax nak lepp soti taxaway bobu askan bi ma waron am fulla gogo ak fayda gogo askan bi ñak nako lo ci man dara askan bi mom comprendre ko askan bi mom nangu nako ko ci dara mais l'essentiel moy ni nga defone ba li ëpp ci askan bi ak si fii ñu ak si tay ci taxaway continuer ko ba kérok yalla yi feeñal li te li ngeen bëgg ci dina ma sam fan gudd ak wër sutura ak barké jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañ ko yàlla boole defal ba beneen yoon incha allah.